fukki at a ngi nii ñu bëre ci sénégalais yi jàpp ni ni yoon di doxee ci biir réew mii am na lu bare li nga xam ne nii des ñu koy jooyanti. sénégalais yi ci boppam tamit ñoo seetlu loolu gis ne justice bi ni mu waroon a tëddee njaaxaanaay rawatina bu dee da nga ko seq ak état wala nga seq ko ak borom doole euh, sénégalais yi ci boppam ñoo gis. Euh, ni muy sooxe. moo ne am na ay coppite yu bëri yi nga xam ne ni jot nañ koo amal ci ni yoon di doxee ci biir réew mi waaye dafa mel ni rek coppite yooyu amul dara li mu saafara ci jàngoro gi. loolu moo tax nag faw ñu euh, ñu soppi suñu doxalin bañ a yem ci li ñu xam kese ci système de droit romano-germanique bi fi tubaab yi indi ñu xam ne am na beneen système de droit bu amoon na ci suñu réew beneen xalaatinu yoon. boo xamante ne bi war nañ cee mën a sukkandiku. waaye balaa ñoo wax yoon bu tëddee njaaxaanaay faaw rek ñii di magistrat yi mën a am indépendance bu ca war. bu ñu waree seet seeni doxalin yooyu yëpp da ngay gis ne loi organique yi ci boppam ci li leen ndeyu charte réew mi may dañoo dañ leen a binde mbindin boo xamante ne bii ministre de la justice ak président. ñooy buum di buum mi gannaaw yooyu la coppite lañu mën a jublu ci texte yi nga xam ne ni am na ci yu bare ya nga xam ne ni war nañ koo xoolaat. bi ñu njëkk mooy procureur ci boppam. manul la nag di topp nit di am lu mu koy sikke joxaguñ ko euh, maanaam dëgg muy tëjaate yéexal mbir mi ba nga xamante ne bii waa ji mën nañ ko sax tëj diir boo xamante ne bii. donte que génn na sax ci ginnaaw bi fekk na bu doon sax moo ko def weesu na ko. lu njiit yu bees yi dogu ci amal ay coppite ci nu yoon di doxee ci biir réew mi doon na lu am solo waaye ak coppite yi nu mu mënta demee bu dee ni yoon di doxee noonu la fas yéene wóoyale liggéeyam daf ñuy